merci beaucoup Ajaratu tey nag dañuy waxtaanee li nga xamante ne nii moo xewoon démb ca gijawaay muy waa PUR seen anniversaire mm-hmm. démb nag ñu doon fêté seen vingt cinq ans yi nga xamante ne nii bi PUR sosook léegi waaye nag gis nañ fa euh, parti yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci biir réew mi gis nañ coalition bi nga xamante ne nii waa opposition bi def nañ ko fa nemmeeku nañ fa it Ousmane Sonko mu tenir fa discours bu ama am solo dañuy dem rek déglu ko daal di dellu si la ñu jàng ni xam-xam ci politique xarañteef ci politique ak gis-gis ci politique boo koy wër ñëwal fekk siwaa waa ñun li ñu gëm ñun waa Pastef mooy ni politique lañ ñu bëggoon gëmloo ni mooy politique mooy naxaate jël loo moomul dige loo gëmul jël alalu réew mi ak manque loyauté ndekete loolu du politique de gis nañ ko ci PUR ba mat sëkk moo tax ma ne yéen waa PUR laay waxal suñu ànd bi du caaxaan du neen suñu tànk seen tànk seen tànk suñu tànk yeewi askan wi Cheikh Ahmed Tidiane Youm da koy wax tout le temps ne sëñ Moustapha Sy nee na la ngay ni def def leen ko sur le terrain moom li muy def mu ngi koy def fi mu ne yeewi askan wi ànd googu mooy soppi Sénégal ba faw est-ce que gëm ngeen ni dans douze mois bu soobee yàlla dans douze bu soobee yàlla kay jiite Sénégal ak ñi muy àndal ñu jiite Sénégal est-ce que xam ngeen ni génnul fii incha allahu dinaa daaneel sama wax ci dànkaaf waat ki nga xam ne mooy Macky Sall dégg naa ni addunaam yépp ma ngi ko jagleel xërëm ak xarga fuufa bu dee ay xërëmkat yu ñuy wëri ba Inde ñoo ko gëmloo ni mun na toogaat fii au delà du vingt février deux xam ne xërëmkat yooyu waxuñu ko dëgg de bu dee ñi ko wër ci ay faucon di ko gëmloo ni mun na sukkandiku ci armée ak gendarmerie ak police ak justice pour toogaat fi au-delà du 25 février ndax nañ ko Macky Sall yàgg naa tooñ 12 ans yi mu toog yëpp 12 ans tooñ la ak lor jàmb jàmbur yi la paix et la stabilité dans ce pays mooy suñu matière première noonu moo jiitu pétrole moo jiitu gaz moo jiitu or moo jiitu zircon Macky Sall moo fi nekk président bu njëkk a créé ay milice dugal leen ñuy jaxasoog police yor ay lance grenade yor ay fetal di ko tiire ci sénégalais yi ñu ngi koy dànkaafu une fois na téye ay milisam ndax li xew keroog ci corniche bi ay milisu Macky Sall yor fa ay grenades lacrymogènes ak ay fetal ba alkaat yi ñemewuñ leen jàpp ne faaw ñu jël ma dugal ma ñoom seen fourgon blindé pour bañ ñooñu tiire ñu ay fetal loolu gàcce Sénégal la te maa ngi dànkaafu Macky Sall ndax benn bis bu laalee benn ci leader yi fi nekk le peuple va le sortir du palais et va le traîner comme Samuel Doe comme tous les yi nga xam ne jaar nañ fi ayca voilà ajaratu mi ngi noonu kàddu yu am solo la fa Ousmane Sonko yëkkati wax na ba euh, euh, tëddaale li xale yi tey xëy tey suba di ko challenge mooy Macky Sall nee na ko làkk na ko ci tukkuloo làkk ko ci làkk yu bëri ba terminé euh, Macky game is over loolu la xale yi jël tey mu nekk kàddu yoo xam ne nag vraiment moom Seydina Ousmane Sonko moom moo ko yëkkati jëmale ko ci waa PUR wax waxaale li nga laaj looy def rek bu ñu bu ñu génnee si si si discours bi mu tenir si président bi wax na ah, pur Omar qualité yi nga xamante ne nii gis na te maa jox sukaa may sax ma jox la <laughs> voilà euh, Euh, mu wax intellectuel yi nga xamante ne nii euh, setul na ko si biir pur ba gars yi xëy di wax ne nee nañ ay taalibe kase la waa pur yooyu. ci parce que déglu naa lépp bu démb ah, dama jël sama décision damaa jël sama sama temps bopp di ko déglu ba mu jeex tàkk ah, dama doon seetaan parce que li ma euh. ñoroon ci kii bi mooy ni que mm. fi ñu demoon mu di stade bi mm. ña nekkoon dafa dama cee am ay nit. dama cee am ñoo xam ni samay xarit lañ ku ci mel ni luumalum euh, day taalibe Mourchid Chidid ak Mourchid moo tax ma toog doon seetaan déglu ko tamit euh, mu wax ñoo ndax ku ne wax na ci. ay dara wax na ñëpp wax na moom bi mu jëlee ba wax li ma wax tamit ku ne ku ne am nga euh, wax li nga bëgg ndax nee na pur boo ko engagé. mooy nga engagé wu wala nga engagé wu ci piir moom nee na dafa engagé wu ci piir piir tamit engagé wu ci moom loolu c'est normal parce que sëñ Moustapha si la euh, kooku ñëpp ko sopp euh, donc mu ni euh, bu fekkee tamit dafa bëgg ay mille et quelques personnes yoo xam ne dañuy def benn dafa dañuy waaj a def benn sitin boo xam ne xam nu mu ko tuddee sax moom Ousmane Sonko nee na mi ngi ciy woo ndaw yëpp ci la wax ni que bu nu bu fekkee ndaw yooyu munu bu fekkee Macky Sall kiiwul dañ ko fekk bu dañ ko fekk pale génn ko. ma koy voilà kay waxatul sa waxi mais waaw kay mais giga parce que dama ko jël dama jël décision bi. dama ko dama ko seetaan parce que damay wax ni que xam nga euh, euh, kii mange mhm. nan ñaan jàmm man jàmm rek laa bëgg ci réew mi jàmm rek lañ ci bëgg. Euh, Macky Sall am na lu mu fi waxoon nee na troisième ba tey dégguñu ni dina def troisième mandat mais mi ngi ciy boosté di wax mais benn ba tey kenn xamul ni mi ngi def troisième mandat mais ba tey ay nitam ñu ngi koy wax mais moom ba tay kenn dégg ko mu wax ni day dem troisième mandat te mën naa bañ mën naa am mais dañ koy ñaan moom mi nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko mu ni giga meeting lay def mais xale yi bu bu Macky Sall génnul nañ ko dem génn ci moom nan ko ñaan parce que moom dafa bëgg réew moom moom Ousmane ah. Ousmane Sonko dafa bëgg réew mi te gis nga xale yi ñun xale yi ñuy wax na nan dem ñu def lii Macky Sall moom dafa war a nekk li nga xam ne moom moo di ëllëg si président de la république te xale yi li mu wax in dañoo mur nee na am nañ doole loolu la wax nee xale yi am nañ doole mur na na léegi loolu moom it na xalaat ni xale yooyu muy wax ni tey bis bu fi Macky Sall jugee xale yooyu mën na noo def lii lii mu wax ni nañ ko def Macky Sall mais nit dangay ñaan jàmm ci réew moom nag mu ngi ci yoon woo xam ne dafa bëgg réew te boo bëggee réew am na noo xam ne gis nga benn benn weñ benn lam du yëngu. Mm. lam yu bari moom mooy yëngu. Mm. moom nañu tekk rek parce que moom moom moom kese moom la ñuy dégg naan Ousmane Sonko Ousmane Sonko li opposition bi di bari ëpp ëpp am na ku ne Ahmed Aïdara nga ci biir Khalifa Sall nga ci moom rek ngay dégg parce que moom moom moom loxo bi moom moom voix bi donc nañ ko bàyyi na du def nànk. macha allah voilà. ayca Omar. waaw euh, démb d'abord mooy wax ci PUR ah. Mm-hmm. Euh, parce que PUR mooy parti boo xam ne man ci politique bu ma doon wax danaan ku leen am jël ku leen ñàkkit wuti leen. Mm-hmm. mooy parti boo xam ne bu ndee àndee yow gëm nga ni li ñu am yëpp dinañ la ko jox ndaxte kenn li ñuy déglu te fu mu joxoñ foofu la ñuy xool mm-hmm. maanaam bu ndee 100000 yow jàppal ni bu ñu àndee yow am nga 100000 voix balaa élection. te loolu moom jàngat la ci pur beneen bi mooy ci discipline bi démb boo xoolee ba Kër Massar ay nit romb nan ma jëm stade Amadou Barry Guédiawaye te ñoom ñëpp pur moo leen a taxoon a jug te boo xoolee avant meeting bi li ñenn ñi sax di faral di def. mooy euh, sukaa déglu ma lu ñenn ñi faral di def mooy mooy euh, mooy euh, kii propagande bi ñeen ñi def balaa meeting. Mhm. boo xoolee sax propagande boobu déggoo ko ci. Mhm. maanaam organisation boo xam ne lépp ci suuf la maanaam c'est une masse silencieuse loo xam ne ci suuf la nekk force tranquille boo xam ne day nalaw mhm. mais heure bu ñu bëggee mu jug mu jug lii nag lu tax mu baax ci politique mooy politique démonstration de force da ci baax te état man lu tax ma gëm lii état lii la xam. li waa PUR def nii parce que euh, ay fan a ngi li leen fi teg bari na jël seen i député tëj ci kaso ci anam goo xam ne bëgg leen a xañ seen mandat ci tooñ goo xam ne du ñàkk ni nan fayoo moo jéggi dayo mm-hmm. mais tey jii PUR wane na ni tey jii bu yëngatoo rek ñëpp xam ni yëngatu nan parce que démb ak tey ci PUR rek la wax mm-hmm. léegi nag bu dee ni Ousmane Sonko moo fa teew ak kaddu yoom ma fa yëkkati man kaddu yu ma li ma ci gën a jàng ci kàddoom rek mooy benn mooy daa am loo xam ne dafa lëntoon suñu xel ay nit def ci commentaire ku mu ne ci ñun di ci wax rek sa xalaat. Mm-hmm. mais moom mi dund mbir mi daf ñu ci wax moom lu mu xam. mooy bi mu duggee ci tunnel bi jëm këram lu tax ñu génnee ko ci oto bi mu nekkoon dugal ko ci oto takk der yi. Mm-hmm. mu ne dafa am ay nervi yoo xam ne ñu ngi bokk ci nguur gi. Mm-hmm. ñoo ko doon xaar moo tax ñu génnee ko doon ko rawale. moom information boobu la ñu jox bu ñu demee ba egg dans un tey jii ba mu jaral toj vitre Ousmane Sonko génnee ko jaarle ko ci unal bi pour moytu ay nervi te takk der yi ñuy wax naan ñoom ñoo am yaa violence légitime maanaam ñoom rek ñoo sañ-sañu yëkkati fitna teg ci kaw nit parce que loolu yoon daf ko may takk der yi takk der yooyu gis ay nit yoo xam ne man ay bandi laa leen ñuy tuddee di ay nervi ñu ne dal leen a ngemb parce que dañ doon xaar Ousmane Sonko li gënoon a jekk est-ce que mooy jël Ousmane Sonko toj otam fitnaal ko yóbbu. wala dem faagaagal takk der yooyu. faagaagal nervi yooyu nervi yooyu kan moo leen yónni woon ak ñoom ñooy ñan suñuy takk der léegi léegi Ousmane Sonko lañ ñeme ak ay militant am léegi ragal nervi yu état bi man jàngat boobu laa ci am bu dee ba ay nervi mun a am dole def lu leen neex ay takk der nekk ci réew mi bokk ci corps d'élite yi ñemewul leen songu Sénégal ñun ñëpp ñu ngi en danger te loolu xewoon na ba Macky Sall demee maatam ñu ne ay nervi ñu ngi bokk ci convoi président Macky Sall di duma waa Matam te amul benn takk der bu leen ñemee laal léegi loolu fan la ñu jëm Ousmane Sonko révélation boobu mu def sénégalais dañ ko néewal jëf jël jàppee ko ab kàddu Ousmane Sonko mais bu dee lu am la ñun ñëpp ñu ngi ci danger. parce que ku mu ne ci ñoom mun nga wax li ngay wax génne ab nerf bi dar dar dar la fii. def la lu ko neex. te dara du ko ci fekk parce que waa nguur gi la àndal. bu demee ba ay takk der ñemeetuñ dal ci kaw ay bandi ay nervi mm. Sénégal gi moom nan ko bàyyee nii ñu xool ba ci kanam ñu xool ndax fa la waneen bi mu jékki gëtam mm, mais loolu c'est dangereux man njëkk naa ko dégg mm. mais bi mu ko nangoo ci kàddu Ousmane Sonko démb mm. ci laa ne ñëpp ñu ngi en danger d'accord certes c'est dangereux mais deful lu dul yokk popularité parce que mel na ni nit ñi niñ ci waxee bi pas sax dafa gën a euh, yaatu par rapport ak événement yuy jot a jàll euh, euh, ça naka nga gisee discours Ousmane Sonko démb si anniversaire waaw xam nga politique Euh, ay jéego la rek ay points yoo xam ne danga koy teg. Hmm. à chaque fois mais lépp lu ñuy def rek luy wax la maanaam léeg-léeg sax hmm. nga gis ñu jub aw ay euh, yoo xam ni liy fànq ay wi mooy yenn kàddu yi nga xam ni mooy jub ñu ne kàddu yu ay la. Hmm. kàddu yooyu mooy indi jàmm. mooy li tubaab yi di wax rek naan qui veut la paix se prépare la guerre préparer guerre taxut nga guerre euh, léeg-léeg prépare guerre mën na di jàmm boo gisee xuppante bu rëy bi am ci diggante Russie ak ay France ak yooyu dégg nga kii Russie bi ne nañ sànni benn bombu kii missile France bu ko defee France doo su exister <laughs> ah? mhm. nga gis ni loolu mu wax noonu uh-huh. euh, loolu c'est wan waa France que seen affaire yi ñuy def na dakk mhm. maanaam pare saa da ngay yore discours boo xam ni eh, boo tegoon rek discours yu jàmm looloo indi ay pare saa yi nga toog rek daal amul benn problème fekk xale yi ñoom neneen lañ gisee léegi nga lewetal mhm. ñu téye la dëkk bi tàgg mhm. donc nag nga tàngal ba kenn du la téye moo gën euh, souvent moo tax man pare damay dégg ci discours yi lu différent par rapport ak ñu bari li nga xamante ne bi moom la koy euh, gisee man jàpp naa ni jamono jiñ toll nii mm-hmm. jamonoy nattante la ñu xool la ndax tiit nga parce que gis nga ci bi ñu génnee Ousmane Sonko ci biir oto bi lu gaaw gaaw ma mbay mi ngi wane naan dafa tiit te moom xamut li ñuy wax moom euh, il est un peu kii quoi maanaam xam-xam bee des xamut li ñuy wax parce ku mel ni Ousmane Sonko tey. Hmm. man ni ma ko jàngatee mooy nit la koo xam ni du comme yow comme man bu nekkee ci situation yu mel noonu buy wax. Hmm. defe naa ni jàng Ousmane Sonko tey boo ko woowee téléphone mën na lay wax suppu kànja ki domadaa fekk muy signifier leneen ka muy waxal mën nay comprendre li muy wax. Hmm. parce que mën na jàpp ni ñi ngi koy déglu mën na jàpp ni li ma ne donc ay langage codé. il faut que ñoom ñu koy utiliser. Mm. te je yi ñu koy utiliser léegi nag boo tombee ci yenn wax yu mel noonu déggoo mbir mi xamu kii fi mu toll nga jàpp ne kii euh, wala ngay nelaw wala par exemple sax mën nga xam mais ngay nelaw loo population bi xamut di leen wan ne leen lii tiitaange la ak lii ak lii ak lii moom tiitaange Ousmane Sonko lu ci yoon. Mm-hmm. moom yow yóbbu nga nit ki ci yoon. yéen tiit ba naan ci biir mais ngay nekk di lijjanti ndax tiit naag tiitut reer naam reerut xam nga yooyu. Ah. mooy waxu ko daal sa donc nga gis ni. Ah. ay jéego la yoo xamante ni bii eh, ñu ci ne ñu ngi koy teg. Ah. waaye defe naa ni ñi nga xam ni ñoom ñoo war a yor yenn yi defe naa ni seen xel nekku ci parce que le fait que ñu téye Ousmane Sonko parce que après bàkkoo nañ ko gis naa ay affaires yoo xam ni dañu ne. Euh, wan léegi wan nañ ko ne ko mën nañ koo jàpp mbir mi du mën a jàpp nit. gars yi sax loolu la ñuy wax neewul est-ce que nekkul du dañuy natt. waaw natt non non non xam nga Ousmane Sonko. waaw mën nañ koo jàpp mën nañ ko jàpp loolu kay kenn ñëpp xam nañ ko. Mhm. gars yi bu ñu jógee pour dem jàpp ko rek yóbbu ko kii mën nañ ko mais xam nga mooy seen problème téye ko téye ko ca kaso ba mooy problème bi parce que bële paase bu leen fàttali nag jàppoon nañ ko. Mhm. mais bañ ko téewee la musiba am. ah xam ne bi mu ñibbee këram war a dem permanence Pastef mhm. dana du génn ñu ne dan kaa yóbbu résidence surveillée rumeur moo doon daw waaw Kër Massar ci guddi gi am na lu fa xewoon ay Kër Massar ay ba uni ba ba université am na lu fa xewoon lan moo xew ci guddi gi mm. ba bu mu xëyee doxi soxlaam mais ñaam ñi ngi wax ne. waaw ñi ngi wax ne après dañu dañoo loolu daal di dindi affaire bi ci saa si. parce que Bignona commencé woon na tàkk dëkk yi commencé woon nañ. commencé woon nañ ki ba Kër Massar yoof gi commencé woon nañu yëngal yoof gi ci suba gi ak université ba tax après. gars yi euh, ci saa si lañ wax ne bon dégg naa ci ay information yu ñu wax ne après ci lañu dindi affaire bi. pour te dire que ni ñoom xam nañ ni. waa ji téye ko musiba la mhm. donc loolu xam nañ ko moo tax nag li ñuy def nii yëpp mhm. ku ci nekk day wan moroomam kii mais loolu mën na indi tension nag ci dëkk bi mais jàpp naa ni mën na indi tiitaange kii ku ci nekk loolu ñu tegante dënn mel ni nga am na benn waay bu ma ko daan nettali ay jamono nee na ma euh, euh, kiiwu kolobaan dañuy dem ba tegante dënn toon kurpañ ju jóg donc fi mu toll nii ñu ngi ci tegante dënn nañ ñaar yàlla kurpañ bañ a jóg jàmm euh, daal de am ci réew mi ayca mi ngi noonu Ajaratu waaw man de euh, démb euh, rassemblement pur bi dama fa romb nag mm. mais nit ñi bari woon nañu j'avoue et puis lii avantage la ci ñoom ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari non ñaari parti yëpp parce que muy Pastef muy PUR ku ci nekk am nga sa mbooloo te ñu fusionné wala ñu pas fusionné mais ñu booloo ñu xam ne ñii déggoon nañu aussi c'est dañ ci dañ ci gën a gañe rek amul ci dara loo xamante ni dañ koy perdre parce que ku gis rassemblement bi xam ni euh, loo xamante ni la wax dëgg yàlla nit ñi bari woon nañu lool lool lool. quant à discours yi nag discours yi man man je crois que man man damay opter pour ba ay discours yoo xamante ni yu apaisant lay doon ça c'est vrai moom moom nee na ku nekk foog ngay uppante ku nekk wane sa morom nii nii laa toll wala dara loolu avantage la d'accord mais nañuy gën di apaiser parce que parce que xale yi leen di bëgg di topp xamuñu loolu. même bu dee ci langage codé bi saa wax ak yooyu xale yu bari xamuñu loolu. dégg ngeen am na démb barki démb euh, démb xam nga barki démb université dégg naa ni euh, étudiants yaa ngi fa doon yëngal yeneen ak yeneen dafa am loo xamante ni. buñ buñ buñ ci demee rek dëkk bi ci kaw lay nekk te du loo xamante ni bëgg nañ ko. yàlla fa àgg. amiin yaa rabbi. vraiment parce que réew mi moom jàmm rek lañ ci lañ ci bëgg mais ku ci nekk rek na nga def euh, li la war loolu lañ leen indiloon tey ci actualité du week di leen jox dig daje jeudi incha allah.